Salam alaikum. Pékin Nord salam alaikum. leen ma je suis de leen de ce ku su mais di le futur maire de Pékin Nord Mamadou Gaye mon frère waxuma ko parce que je ko plaisir parce que c'est une conviction chez moi monsieur le futur maire merci pour l'invitation merci merci de nuyu sa staff yëpp li ñuy wax rek ku ñepp soxlo nga xat mais Pikine Nord dama xamul buñ ma invité naka lay def parce que ni ngeen ma téye xamna ko yëg naa ko samay nit yëg nañ ko mais dama japp ni la réciprocité est confirmée xam ngeen ni aussi li ngeen ma jox jox na len ko moom jeex tak merci pour l'honneur merci pour le plaisir merci également pour le soutien Tay la gëna gëm nak la coalition Yewwi Askan bi. Kéba dégg ko dara tu en politique de nga dégg leneen ak lénen. mais ça ne fait que nous grandir dañu ni Yewwi Askan bi. dama xol fi gisuma kenn ko xamante boum buum mi ngi ci ay loxom kenn yewu fi kenn waaye nak dama japp ni am nañ sa soxlo yo xamanteni yew nañ ci pour qu'est-ce que ça veut dire yew askan bi c'est une philosophie et il faut le comprendre comme tel dama japp ni xalé bu ndaw bi wara jang jang bu mucc ayib mënula eggale jangam kooku yew nañ ko dama japp ni ki nga xamanteni dafa échouer BFM quelle que soit la raison buñ ko bayé pour compte te amul benen perspective amul benen opportunité koko yew nañ ko dama jàpp ni ki jàng ba xubi ba am ay diplôme di wër juróomi at mënul am liggéey kooku yeew nañ ko dama jàpp ni ki nga xamante ni dafa yore daaram ñu war ko jox une considération parfaite bu fekkee ni jumtukaay yi nga xamante ni moom lañ jox école moderne mënu ci mënu ko am kooku yeew nañ ko dama jàpp ni artisan bi nga xamante ni dañ ko war a encadrer dafa war a am ay jumtukaayam dafa war a egg ci levier de financement yi bu fekkee ne mënu ko am parce que il y une ségrégation par la par rapport à sa kooku yeew nañ ko dama jàpp ni yow miy jigéen mi nga xamante ni yaa ngi ci liggéey di bañ di di liggéey pour faj say gàcce ak sa gàcce njaboot dama jàpp ni bu fekkee dañ laa war a financer te bala ñu lay financer laaj la sa carte sa carte politique kooku yeew nañ la loolu la ñu dagalee ne véritablement askan bi dañ ko yew té il est temps que askan bobu ñu japp ci pour askan bi yew bi bopam pour le développement du Sénégal amna nak liste bo xamante dañ ko ragal muy la liste yeewi askan bi à la ville de Pékin. amnañ ci plaisir amnañ ci honneur tay la gëna am détermination magay sec bokay koy da ngay jàkkaarloo ak moom rey ko do ko jame ci inshallah j'ai la conviction ferme que même bu ñu may daaneel sama arme au point lañ may daanelee waaye kenn du ma déshonoré bu ma bëggoon lu sedd bu fekkoon individualisme la bu fekkoon égoïsme moo ma animé mais d'ina tànn bi gën a sedd mooy tey topp seen ginnaaw ànd ak naag ñoom sept ans kenn gënuma leen xam bu fekkoon ni foofoo gën fa lay tànn.

ba déclaré de sa propre bouche qu'il il ne pouvait pas avoir un meilleur premier adjoint que moi kooku c'est sa ça et c'est pas parce qu'il veut me faire plaisir c'est parce que suis ko Je te mosuma ko yàqal mosuma ko fakastal Non, lay suis Donc.. monsieur les maires monsieur les monsieur les maires aussi je vous encourage à persévérer Nous sommes Pikine déglu naa sama vu Pékin c'est possible mais pour que ça se réalise il faut que encore une fois ayez une abnégation dara bañ distraire dara bañ len yakal objectif li faral di wax diko man moy yeen tamit fu sen be bu ko fit la mairie ngeen wara tek ben levier bo da accéder bu ko da li tax nak sama mënta moy dama dem te damay di ni si jëfam rek lañ ko mën a té dama jëlon engagement di dinaa fa dem mais dama mënula tëb Pikine de te ñëw ma fii ngeen gis ma xamni aussi man ba tey déterminé une am détermination nañ ma éliminer mais je suis contrat la bëgg ñu signé ko même si on m'élimine par extraordinaire monsieur le maire gagnez pour moi s'il vous plaît gagnez pour moi pour me faire honneur gagnez pour pensez la plaie qui m'anime aujourd'hui bu fekkee ni gañe ngeen yëngatuma dara parce que dañu Parce que ñàkk sa waay moo ko amul j'y crois fermement et je vous exhorte à gagner pour moi c'est possible merci merci c'est possible c'est possible lu ma naqar bi fajal leen ma sama naqar maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm

Nous teew fas yéene ànd ak ñun ci lu ñu jëm muy campagne fas yéene jox ndam la coalition Yewwi Askan Wi de Pikine Nord dama wax ni heure bi dafa jot heure jël décision population petit Nord joxone ngeen fi kenn mandat pour djuroomi at heure bi jot na nak ngeen jël sen décision te décision bi population bi ñoo ko war a jël parce que commune Pikine Nord dafa war a soppeeku te heure changement bi dafa jot donc kenn warul topp ci këram kenn warul des ginnaaw war nañu mën a góor góorgóorlu ba suñu commune nekk commune bu gën ci commune Sénégal yi commune Pikine Nord nekk une commune de référence nekk une commune modèle toloolu loolu yéen ñii yéen a ko mën a def Tan yeewu askan wi tekut ko ci sen loxo ñu am changement bu radical bo wër ni ñu fi newoon dañ dem foyer commune bi liggéeyu ñu won pour population Pikine Nord équipe yeewu askan wi nak nekul équipe bi naxé parce que fasiyene yéene wu ñu nax kenn lepp lu ñu ak askan bi inshallah allahu rabbi danañ ko sam suñu kentalaay katan di leen wax rek programme askan wi jigéen ñi am nañ ci cër bu am solo mais ndaw yi kenn bàyyi fàttewu leen ginnaaw personne troisième âge yi sóoraale lañ leen ci bu baax a baax di wax ni nag ay nit ñu am conviction ay nit ñu am engagement ñoo sekki coalition bi à l'instar de de nos leaders ñu samp coalition bi bu ñu jëlee ku mel ni Khalifa Sall di référence jël ni ku mel ni Ousmane Sonko jël ku mel ni El Hadj Malick di suñu leader jël sëñ Moustapha si jën sëñ Mansour Jamil jël suñu seen jigéen Aïda Mbodj bi wax ni ñooñu ku ñu ngemb yaakaar war na mën a am ci yow donc waa yeewi askan wi di wax ni waa yeewi askan wi yaakaar war na judd ci ñoom donc di wax ni liggéey bi rek lu ci am solo mooy axe bu ñu ak si programme buñ fi liir tey programme bi ci sis axes moom lañ ko natt premier bi mooy sécurité commune bi danañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu ñu yàlla joxe ñu jiite magistrature commune Pikine Nord la jeunesse kenn du leen fàtte éducation bi danañ ko def priorité sport bi du ñu des gannaaw lépp luy forme sport bu am ci Sénégal

formation boo xam ne jamono moo ko soxla pas formation jàng pour jàng rek formation boo xam da ngay jàng am mën a jariñu bu ñu jegee ci loolu commune bi cadre de vie bi danañ ci bàyyi xel bu baax commune yi ñu rue yi ñu war a mën a pavé danañ góorgóorlu suñu kat suñu kattan ba Pikine noor suuf dina fi dina fi wàññeeku du ñu wax du ñu wax suuf dina fi jeex mais lu ñu mën danañ def ba nga xam ni nit ñi bu ñuy dox danañ dox ci ay tali karo loolu moom lu ñuy diggee la te lu ñuy fas yéenee def suñuy yitte la di wax ni tamit commune bi bu ko yalla tegee suñuy loxo deureum buñ ci génné du nek ay deureum pour dëkk dërëm bu ñuy utiliser ci ay fo wala ay tiaxan lepp luy génn mu nek ressource commune bi ci lu am njariñ lañ koy def luy jariñ su population bi di gërëm ñëpp nak di leen sant di leen gërëm di leen wax nak le 23 soreetul te changement buñ ko bëggee ñun ñi ñëpp ku nekk da nga koy def sa yitte bopp benn maire rek mënul liggéey commune population yi ak citoyens yu dëkk ci commune yi ñoo mën a defar seen gox donc ñun yeewu askan bi ci loolu lañ leen di woo di leen wax nag juróomi at moom la ñu war a tànnaat maire te lu nekk nag nit ñi danañ ko promettre nit ñi danañ indi xaalis jox leen ku leen jox xaalis lekk leen parce que ñun ñu leen jox du seen alal su ñuy impôts yu ñu récolté la ñuy jël di leen ko joxaat pour naxaat leen ko pour juróomi at yu ci des il faut que nit ñi am fulla yeewu askan wi dañ koy wax première buum bi lañu fas yéene yeewu mooy buum yi ñu takkee tànk yi muy la base la commune loolu lañu ñu war a njëkk yeewu te lool population bi ñoo ko fas yéene def waa yeewu askan wi pare nañu incha allahu rabbi boo leen ñu tànnee ñu jiite commune Pikine Nord incha allahu benn naqar bu ñu war a mën a faj ci biir commune bi danañ ko faj te ñu décevoir kenn incha allahu rabbi waaw donc ma ñu ma ñu ngi ñu ngi gërëm nag suñu frère ñun ñu bokkaloon jongante bi pour jiite Yewwi Askan Wi parce que boo xoolee au niveau de la commune ñu fi ne woon ñëpp ñu ngi fi képp koo xam ne yaa engagé woon nga rek kenn desul gannaaw donc yéen dama leen di gërëm di leen sant di remercier jigéenu Yewwi Askan Wi de remercier la jeunesse de Yewwi Askan de remercier aussi les femmes de Yewwi Askan de remercier aussi suñuy parents yu ñu gunge di ñu ñaanal kilifa yu baax yi dëkk ci gox bi muy imam yi chef de quartier troisième les personnes ressources waa troisième âge yëpp incha allah suñu programme jox nañ leen ci pàcc bu am solo dañuy bàyyi xel ñëpp di leen gërëm di leen sant waaw di demander nag euh, élection yii damay ñaan ñun ñëpp ñu ko sekk muy candidat yi ñu dem ci ci xel xel mu dal xam ne ku yàlla fas yéene jiite yaay jiital commune yaay jiite commune Pikine yàlla noppi na ku nekk nag da def sa devoir lépp lu ñu ut nañ ko ut ci ngor ut ko ci jàmm ut ko ci sutura ut ko ci teraanga jàmm moo ñu war parce que ñun ñëpp ay frère lañu ku nekk Pikine Nord rek moo lay yitteel muy candidat yi fi nekk yëpp mu le maire sortant ak ñeneen ñi ci des ñëpp du ma lim kenn mais ñoom ñëpp dama jàpp ni am am nañ yitte ci commune bi parce que politique yombul képp kuy bàyyi sa yitte di dox pour jàmm soxla askan wi kon am nga foo teg population yi donc damay wax rek ñun ñëpp nañ dox ci jàmm xam na ay frère lañu ak ay sœur violence xajul suñu biir parce que ku nekk koo gaañ yaa koy seeti ci nañ dox ci jàmm ut ko ci ngor ut ko ci teraanga ku ko yàlla jox ñeneen ñi applaudir la ñëpp képp ku war a ànd ci liggéey bi te am ci ay compétence nga intégré ko ñu liggéey suñu commune commune bi jëm kanam te jàpp naa ne ak yeewu askan wi sincèrement Pikine Nord dina soppeeku bu baax a baax ci juróomi at yi di jóg waaw maa leen di gërëm di sant salaam